asalaamaaleykum sëriñ bi. waaleykum salaam wa rahmatullah. tey ngay organiser ak sa association AES ngeen di organiser fii euh, colloque international euh, sur l'islam et la euh, ndax mën nga ñoo dellu si tuuti lan moo tax ngeen def ndaje mu mag mi. jërëjëf li tax ñu def ko daal du dara lu wan àdduna bépp ne l'islam diine jàmm la du du diine violence ak terrorisme ndax tey ji képp ku foo tuddee l'islam rawat na ci pays occidentaux yi. dañ koy ragal ndax jàpp ne diine yi ay la te li ci gën a doy waar mooy ñi nga xam ne ñoo waroon a ŋàbb lislaam war koo taara war koo wane ñooñu boo leen demee ñoo fekk nga xeex ñu xeex seen biir def ay attanta ci mosquée yi ci jàkka yi ci église yi ci marché yi te bu ñu koy def dañuy takk biir allahu akbar ngay dégg loolu kon tuuma bi ñu tuumaal neexut a ci benn côté waaye alhamdulilahi rabbil bi nga xam ne école sufi muy tasawuf ñoom boo dellusi ci ñoom nga xool seen histoire xool seen lépp da ngay gis ne lépp dafa set wicc li ñu xam mooy diine ju ànd ak dal ni ko yontu sana sana wax woon diine yusru la ak jàppandal la daana wax ne dee leen jàppandi bi bu leen jafeel mbir yi loolu nag tasawuf am ci expérience yàgg ko dund euh, depuis si euh, maam Cheikh Amadou Fouti Tall depuis Serigne Touba Sidi Hadj Malick Sy ak ma Abdoulaye Niass ak ñi fi nekkaloon ñëpp ñu dund ci jàmm salaam ba bàyyee ñu maanaam ndonali Euh, war nañ koo jéem a saytu fagaru ko ci loolu lañ nekk moo tax ñun ñëpp ñu ànd nekk benn waaye wan àdduna bi tamit ne leen lislaam bu fekkee ne bëgg nañoo ko dund piir na ñëw ci école suufi waaye école bu ñu demaat dañuy fekk ne ña ngay xeex ak ña ngay xiir ña ngay ŋaayoo moo tax kon ñu organiser colloque bi pour indi solution pour indi apporte maanaam ay gis-gis ak orientation yoo xam ne bu ci umma islamique bi jàppee jàmm ak salaam ay am waaye waxumal umma islami sax waaye bu ci àdduna bi jàppee jàmm ak salaam rek mooy am ñu ne jamono ji nga xam ne yéen a ngi def colloque bi am ñu nekk ci peut-être ci internet bi xëy na di jël yu mel ni xeme di ko yàkk sunu mag ñi euh, loolu ndax du da ngeen bëgg tontu ñooñu moo tax ngeen ne na ngeen taxawal lu mel nii euh, loolu ngay wax noonu mooy ñi nga xam ne dañuy insulté nekk ci internet bi di profito moo xam ci réseaux sociaux ak lu mënti doon di enregistré audio di xas mag ñi contexte bu mel noonu la AIS e juddoo AIS e 2015 bi mu taxawee li tax mu taxaw pour gisoon lu mel noonu moo tax mu ne woon nañ gaaw kon réunir dajale këri diine yëpp ñu ànd nekk benn mën a faire face ak loolu yàlla xam ne AIS e di génn ci liggéey bu rëy rëy ndax ñooñu defloo ci réseaux sociaux yi AIS ubbi na ay ci internet ci réseaux sociaux yi mu rawatina WhatsApp nga xam moo xew léegi def ngeen benn groupe 256 personnes nekk fa bu fekkee ne am na mag mu fa nekk moo xam ne ay xale rek na fa dajale di leen endoctriner loolu bu ñu ba dugg foofu fépp li mu yor ci ay compte whatsapp kenn xamul toll ngir nan lañ mën a fexe ba ndaw ñooñu bëggoon a rëcc ñu indiwaat leen li ci def nag mooy ñooñu nga xam dañuy insulté mag ñi ak di xas loolu lépp day wane échec échec bu am seeni école ndax lislaam diine xas lislaam diine euh, maanaam jikko ji rafet la ndax yonent sa moo waxoon ne yàlla damaa yónni ngir mu mot li jikko yi rafet kon ku digg mu xasaate ak ku gëmut yàlla sa waroo xas kii jaam aw nag sa waroo la ilaha illallah rasulullah loolu kon bëgg ko euh, jox suñu ndaw boo ko defee ñu mën a porter mbir mi ba ëllëg yàlla suma subhanahu wa ta'ala mën nañu def li ñu bëgg. lan nga gis ni ñu jàngale mag ñi yu Sénégal tey war na doon euh, référence ci ñi nga xam ne tey ñooy ndawu Sénégal. li ñu gis mooy premièrement balaa loolu dañuy dañuy woo état woo ñi nga xam ne ñooy politique yi ñu fexe école ñu dugal ci njàngale mag ñi jikko yi mag ñi yoroon suufi yor ko école suufi yor ko dañ ko jéem a traduire dugal ko ci njàngale mi jàngal ko nit ñi loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañu muccal sax rey ay nit ak di dagg yooyu Sénégal xamu waaye loolu lépp culture bu jaxasoo la comme mondialisation bi am internet bu ubbeeku nit ñi seetaan lu loolu moo leen yóbbu mel noonu loolu nag dañ ko war a karat kar gi mooy fexe ba jël ah, njàngale mag ñu baax ñu dugal système éducatif bi ci yu gën a ndaw ba ciy gën a mag loolu jàpp nañu mi ngi ko defee dana mucc yëpp daal incha allah. tagg dem aljanna mamado rasulullahi sayyiduna muhammad bëgg dem boko ko dom mané sulla takal sa yap yaram aram na sawara muhammad rasulillah sayyiduna muhammad madina ya mata dem sa suuf sa moom mata dox sa dox ma mata sayyiduna muhammad tandar ma jaaga na neexe rut ba watat mi yonen sayyiduna muhammad Bayu fatima ak umu kalsoom baayu roxoya abu xaasim baayu ibrahima maariya may caatu nen si nu jàbba wowo waajanga madina mooy maami aadama maamam lii la téere yi wax mooy maami aadama maamam wóor